Serigne Touba ak bëgg ko ak sopp ko ba àjjanay firdawsi ku ko def ku nekk yàlla na nga dugg ci biir ñaan googu barke Cheikhul Khadim mbég mi mooy lan fan yi yëpp ku ne gis na ne am na nataal yu ñuy tasaare ci internet bi di wax ne nataal yi sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul la ci jamono ya muy teg xeeru jumaay njaareem 1918 liñ ci jot nag ci ay laaj bari na lool ba mënee su ko tontu kenn par kenn. waaye démb bi ñu ko publier nag ci sunu Facebook ak sunu statut laaj yi gën naa bare te ñun duñu baaxoo ñoo publier wala ñu baaxoo tasaare loo xam ne ne gëstuwuñ ca ba am ca lu leer naññ wala sunu xel dal ca gannaaw bi nga xamee nag yàgg nañ ci jokkook ay boroomi xam-xam am ñu ci séqal sax ay jataay ak ñuñ bokkal ay groupe ñu ay kilifa di boroomi xam-xam ci yoon wi boobaak léegi argument yu nekk ñu indi ko yoo xam ne nii daloon na sunu xel ci ne kii kan mënta doon kenn ku dul Serigne Touba kon bu fekkee ne gëmoon nañ ko ñun te sunu xel daloon na ci en quatre-vingt-quinze pour cent démb am nañ ci cent pour cent yoo xam ne nattableetuñ ne kii kat ku tedd ki la li may wax nag man la engagé ndax dafa am ñoo xam ne ñoom li may laaj waxtu nekk mooy lu ma xalaat ci événement bu ñëw bu nekk wala lan moo ci sama abi ñu jàpp loola kon ñooñu la ma leen di wax lu wér ci man la war a doon kon man man saalihu si mooy nataal yi du kenn ku dul Serigne Touba fi ma ko tegit moom laay indi nii ngir mu leer dafa am ku ñuy wax Serigne seex coro démb ma jokkoo moom muy ku baax moom itamit ñu bokk barab yoo xam dañ ciy yëngatu ci wàllu xam-xam Serigne Cheikh Thioro way juróom mi ngi tudd Serigne Mamour Mbacke moom sëriñ Balla Thioro Serigne seex mii nag démb. dafa jokkoog way juróom sëriñ Ahmadou Mbacke ñu gën koo xam ci baay sëriñ mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Balla Coro ci kaw suuf yàlla na fi yàgg lool te wér moom sëriñ Cheikh Coro dafa wax ne nataal yi de fan yii yëpp ñu ngi ko yor ngir bëgg ko wan sëriñ bi waaye dafa fatu woon waaye démb lañ jot ci moom biñ ko ko wanee fa saasa amut lum ciy naatable amul ma dem te ñëw dafa leen wax ne jëmm jii taxaw ci càmm yu sëriñ bi dox diggam ak tubaab bi mooy way juróom sëriñ Balla Coro te sëriñ Balla Thioro moom la ñëpp xam ci ne moo daan interpréter sëriñ bi li tubaab yi wax di tekkil tubaab yi wolof yi sëriñ bi wax ci nasaraan te loolu da ko defoon sasoo woon ko ngir liggéeyal ko sëriñ tubaab moo tax mu jàngi tubaab yi ba am certificat ca ndar moo tax bi fi sëriñ bi jógee ba nu mu fi jógee moom 1947 waxatul benn baatu tubaab ndax nee na sëriñ bi la ci daan liggéeyal te nekkutu fi kon dootu ko wax kon nag ah, bu fekkee ne ki ku fi nekkal nga xam ne nii mooy doomam la joo xam ne nii du gone ndax bari nañu mag ci njabootu sëñ Balla bu gisee nataal bi nag kii mooy sama wayjur sëriñ Balla sëñ Balla Coro buñ ko dëppalee ak nettali bi sëñ Modou Lamine Diop Dagana ak gëstu yi nga xam ne nii yëpp borom xam-xam yi gëstu nañ ko ci événement boobee kon lañ ca jàppoon ñun day gën a yokk dañuy jàpp ni kii du kenn ku dul sunu yaakaar sëriñ Touba Xaadimu Rasuul man loolu laa gëm te loolu laa jàpp itam. kon nag sëriñ Cheikh Thioro ñoo ngi koy gërëm di ko di ko sant ci gëstu boobu ak coono yooyu mu ci daj di ñaanal sëriñ Ahmadou mu yàgg fi lool te xam naa yeneen détail dana ñëwaat yoo xam ne nii euh, argument yi ñu andi ak détail scientifique yi nga xam ne nii borom xam-xam yi def nañ ko ci danañ ko ci indiwaat ngir mu gën a leer gën a dal xelu ñi nga xam ne ni ñoom dañu doon déglu ay lay yuy wane ne kii moom la wala yuy wane ne kii du moom kon man daal li ma jàpp mooy. sëriñ bi la kon loolu nag am nañ ci mbégte baax te it nataal bi itam ñu baree baree bari ñoo xam ne ni man de rafet naa njort ci seenu taalibe ku ci nekk ñu ci bari ci ñoom ba ci man mii dal na ma bañ ko njëkki gis am na lu ñu yëg loo xam ne nii ba ba jëmmi ba fi may wax yéen ña ngi yëg kon nag loole bokk na ci li nga xam ne nii mënees na koo jàpp ci loo xam ne du mbirum saayir waaye mbirum baatin la bu ko defee nag mm, gëstuy saayir yi doo ko ñëw jumaa ji itam suñu borom tabaaraka taala moo ko fayee sëriñ bi mook jumaay Tuubaa jamono ba mu nekkee lambare na samp ñeenti bantam yooyee kap jàppee ko jàkk capitaine bi ñëw ne danga koy dindi ku ñuy wax yéeli say dëkkoon ndar doon liggéeyal tubaab bi ci jamono booba jóg jëlal par sëriñ tubaa di ci xuloo capitaine ba tàkkusaan ba timis loolu sëriñ bee ko nettalil boppam bañ defee seeni mën-mën ba dajji bant yi tamit sëriñ Tuubaa daal woy xasida goo xam ne ma ngi ko tënkee rabbana axrijna min asir xariti zalimi ahluha waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasira aaya juróom-ñaar fukk ak juróom suratu nisa yi nee na bi mu agsee ci bayit wi la huktub salaatan max salaamin bi alihi wa ashaabihi wa shalbihi masjidi rahba ci la ko yonent bi sallallahu alayhi dikkal ne nag suñu borom nangu na sak ñaan te may na la ñaari jumaa yu rëy ci réew ma te mooy jumaay njaareem ak ju tuubaa ñoo jur jumaa yi ci des yëpp nag yi ngay gis moo tax sëñ Moussa Ka di ko nettali ne fekkoon na Cheikh Bamba defoon na jàkk fa pegg quartier ga mu jublu Makka su quartier ga yi liit Bamba daal di noddu ñuy maaj mu kabar noon ba fa ko gedd capitaine bi ñëw na Bamba jàkk xewu fi bul nu xatal sa jullikaay bi xaju fi quartier ga wëq ñëw tasaare jàkk ja njol Makka ñëw fa ne ko am nga maxraja njol Makka war na ko fa ay ajaayibu may ko ndigal mu taalifaat mu waayibu ba mu wooyee salli banaa wa sallim jol màkk tontul ko alal mukallim jibrilu tegtal ko wadu ur yaasim bur yàlla tàmbel ko jumaa yi boppam danga tabax jumaa ju fa Jurbel kenn du ko buddi kenn du julli normal da nga tabax jumaa ju rëy fa Touba te lee nga dem Daaru Salaam ak Touba kon jumaa ju rëy joojee fa Jurbel nataal yii ñu gis sëriñ bi tureel bi tege ci suuf moo yor ab pikk teg ko ci kaw xeer wi sëgg am fu jullee ñaari rakkaa am fu taxaw sëñ Balla dox diggam ak tubaab bi nataal yooyu jàpp naa man ne nataali sëriñ Touba la yàlla na suñu borom defal tawféex